ngeen jëf yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di ñoo ngi fii ci émission mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel dem ci fans yi waaye su ma nee xel yi dem ci ñaari mbër yi nga xamante ni ñooy sëgg ci digg géew bi di jëflante seen biir tey nag mu invité fi ñaari xale yoo xamante ni ay ndaanaan lañ ñaari xale yoo xamante ni bu ñu bàkkoo mu neex bu ñu bëree mu neex Fallou Ndiaye nag moo tëgg bii komba di la le 27 février ci diggante euh, nu mu tuddeeti waay Caatu Yaax ak ki nga xamante ni nii mooy Bulldozer loolu mooy grand combat combat spécial bi moo nekk Ada Fass ak Jokkel mais ñaari xale yi nekk xale yoo xamante ni nii dañu bëree ci biir bés bi tey ma dalal leen fii ci diggante ki nga xamante ni mooy Sokh 2 ak ki mooy Bécaye ma bàyyi la ñu nuyoo ñëwee waxtaan wi Sokh 2 nuyu naa la. waaw ah, Ousse maa lay fay ginnaaw bu ñu di sant si yàlla. di sant si Seydina Mohamed di sant si ñaari waajur xam nga di bëgg sama gaay yi ñu àndal. garmi mhm. Moussa Naar Paaka xam nga di nuyu waa Jaxaay gi yëpp ak waa Morola ak waa Kër Mbay Fall waaw. <laughs> Bégaay nuyu naa la. onze bila bisimilah inna wali yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama borom daaru jaaraama borom daaru Ousseyn maa lay fay waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla juddu si rent ñaari waajur du nuyu waa parcelle yëpp 1 ba 26 waa Grand Médine Cambérène ama Nord Foire waa Guédiawaye Soprim sama waa dëkk waa Casamance maa ngi nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñu ma àndal. Mhm. ku su mel ni Iso njool bi seex Mbacke. Mhm. Faradaas ak Noreyni Seydina Ousmane maa ngi bëgg ñëpp di nuyu waa wasaare yëpp xam waaw wasaare. balaa balaa balaa balaa xuus sax dama gis ndox ci escalier yeeg ci biir kan moo ko ci sotti yéen est-ce que fekk pour man sax waa gàll bi ñooy menace. <laughs> billahi wax de dama ne ah, jaar ndox mi mu sotti ba mu ñëwee si kaw laa jaar lu mu sotti ma jaar si kaw. billahi wallahi wa taala kii li dee na la ko de. xaw ma ku lay dee nag information yi lay jox baaxut de. booba tey maa la a xam. li nga wis non ndox mi ndox rek dañ ma jox ndox bi rek dama ma ko jox mu takkal rek <laughs> gaa ma gaa ma force bi jox ko nag ma sa diggante ak Sokh combat du ko dàq. non làmb la làmb ji kii siwul na ko waar. siwul na ko waar. dama la gis léegi muy wax ngay def nii naan dama am doole. parce daa am wax bu ma wax daa am wax bu ma wax. wax joo daf ma jàngal lu bëri. la wax. non loolu su ma ko daanee ba pare. non jaar si jaar si tey mu neex. la lépp di leeree. non dama si jaar da ko may courage. di loo ko wax loo ko wax. moom kay moo moo si war a jaar nettali moom. génne jëmale ko roon. micro bi. waaw. waaw wax ji. dëgg la jéem a wax jooju ma la daan. soq maa la doole. gën a nekk xale. man gisuma doole si. wax naa la ko maa doole gën a nekk xale. man ki suma doole si yow. mais est ce que Sokh est ce que Sokh doole koy daan est ce que Sokh doole. maa ko bu doole dàqu bëri maam daan jël bu rëy su ma ëppee doole yàlla ma daan. man xam nga ëppee doole yàlla ma kon ni nga toll nii doole ji ëpp na noonu. barki Modou mbaake Ouzin xamal ma neex si làmb ji. fa bëri moom lañ ko jox. déedéet ñëpp loolu moo barki alxuraan loolu moo gën a neex si làmb ji parce que làmb balaa muy neex rek bërekat balaa muy mun a bëre rek gaa yi jox adversaire am favori. Ousseyn. Mhm. favori boobu muy wax maa ngi koy a dégg si gémmiñam tey. ki gëstu ma ko kon moom moo yooyu noonu ba billahi maa ngi koy a dégg si gémmiñam tey. kii ba ma jëlee combat ba jour buñ taxaw contrat ba mët. si mhm. kanam Fallou Ndiaye. samay entraînement laa fonk amul lu may gëstu si Bécaye. Bécaye Seck damaa taxaw seetaan làmbam. Bécaye eh, Seck ngay nga naan xalaat ñàkk ba ah, eh. muy bëre arène maa ngi babati babat muy wax ni fekk mu ngi bëre arène ne maa ba ngay bëre dama la bëre. <laughs> kii mu wax laa ngay wax de. xanaa déglu ma Ousseyn yow yaa ngi mbapat. billaahi ba may ñëw si koyam. wax nii fekk bëre ku ma arène maa ngi bëre xam nga kañ laa commencé ah. bëre. fin 2018. 2018 waaw kii te kii bëre na avant boobu. fin 2018 laa commencé bëre man te loolu yàggul. yaa ngi ñaari combat cinq victoire deux défaites waaw sama premier combat laa ñàkk ak six combats benn défaite bi mooy septième combat. waaw sixième deuxième défaite. loo ma wax léegi defe naa da nga ne ma yàgg moom da ngeen di tolloo. mu ñoo tolloo kii mu ñoo tolloo si lenn. teel mi ko teel mbooloo affaire yi affaire yi jaxasoo na affaire yi jaxasoo na xam nga affaire nga benn défaite la tey mu ne mu waxaat ñaar. waaw yaa ngi dégg. Mhm. bii ba ñett. man ma am six victoire. dama ah. la benn defet la am laa yow man na sept combat la am benn sept benn defet la waxoon man kon eh, dama lay eh, joxaat benn defet eh, nekkoo fi xanaa ndékkoo ba ñëw yow ndox mi daa mel da laa tiital de. ay fomp leen ndox mi déggoo ma de ma wax la de. wala gars yi ndox mi kii sax am na ju bëri. xam loo fi andi mu teel contrat bi mu jeex. ma temps toog fii di wax ak yow. jox am joxal job man amul ma ñor si yow ma ñor si yow. digg géew tolloon nu a nee nag barki Serigne Bamba dama lay ñaanal jàmm bu ma sëg nga liggéey andi doole bu bëree ah, bëri laa la andi say mbokk ma daan la. loolu bu doole benn barki Serigne Bamba loolu bu doole si dara mais nag eh mais Sokh day mobiliser lu may mobiliser du ko mobiliser. eh Béga eh say combat yëpp maa ngi échangé. naa torox. ki chaque année benn combat lay eh, eh, bëre. Eh, kii 2015 la bëre. 2015 la bëre. ajal micro bi. 2015 la bëre. kii bu muy bëre man ma may dem si koñam barki yàlla boobu maa ngi si kaw tribune ba mayen dem di wéy wéy wéy kii bi jaan fay saa yaa eh, ngi naaw jokkati ban ah jokkal fëgal bi xam lamb waaw jokkal fëgal bi laa wax boobu mayen dem muy wéy eh. esat ma ne si ko tribune nekk xale ndaw di baax maa gaay jokkal fëgal ak yaa ma jokkal fëgal barki démboo njaay la de eh, man <laughs> sama tey tey laa bëre benn weer pare combat beneen weer bëre waat soog da ngaa man trois ans laa def si lamb dóor xaw ma trois ans xaw ma soo bëggee dégg dégg si lamb barki Serigne Bamba Mbacké billahi wallahi wa mais lan moo tax lan moo tax wax kii dama ba sa tuwe yi ngay wàññi barki ah, ma toloon nen ngay wàññi ay tuwe ak ay li nekk man mhm. billahi wallahi wa kii aw ma lu may sóor si moom dama koy daan man loolu laa kii daf may bàyyi xel normal benn kii daa mu wax beneen wax bu bëgg nag wax ba combat di taxaw. waaw lu mu wax. Mm-hmm. kii ba ñu ma waxee combat bi kaay laa commencé di ko suivre. te man yàlla xam musuma dem toog di tapé YouTube di xool Sokh. yàlla xam na ko. mais est xam nga ndaanaan la. kii yéewu ma si bëre. barki alxuraan. yëkkati micro bi. jaru lii jaru sax may waat mais kii yéewu ma si bëre bëre bu muy bëre man dama koy fooyee. maanaam lu muy jaay man dama koy maye. pour mu leer quoi moom li muy jaay. naka nga gisee man ma koy maye. naka nga gisee état dafa moom. na ko yokk wala mu liggéey lu wóor kii daa dem nan naan siro Gambie ñëw fii ah di solal nit ñi. yaa ngi ñëw de mais yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw de. yow kii mu ngi ñëw mu ngi wax naa yi ngay naan normal comme comme man xale da ngay wan ni xale nga man damaa liggéey muy fen sama yaram mais yow da ngay naan siro muy fen say lax da nga demoon Gambie siro Gambie Gambie yëpp nekk xam nga mm. siro Gambie combat bi ba a jógee Gambie ak léegi combat bi taxawut combat bi dem naa Gambie ba ñëw combat bi soo ko taxaw fii la taxawee. sawaay ba dee dama ma la may ma la may nga wax yow du ma la <laughs> wax. waaw wax ji nga ci am ma wax. am ba léegi wax ma wax. nga laa may lay déglu. laa ma ji laa lay wax nii. Mm-hmm. dama lay neexal gem neexal a teg bësal bësal bi. Mm. xalaat perte. waaw loolu laa xalaat perte. Mm. waaye yow yow kon da ngay ñàkk da ngay perte nga naan ma xalaat perte. waaw xalaat am nga naan ma xalaat perte xam nga da ngay perte. man ma xalaat wax ji yow déggoo ma de. ma xalaat dama la ni wax ji nga ci am. wax la am ma de. dama laa junj dama laa junj amoo déggul boobu non non. moo tax ma ne la ngaaxa nga. saa ko ngaaxa la xool ma man boo wax ak yoon ma lay xool. bul dem sa bët dëgg yi. may xool. man de maa gisul li nit ñi di xool si yow wala yow li ngay xool sa bopp laa gis ngay daw. non bëggu ma la xool parce que bëggu ma. xala bàyyi di ne doomu PA bi. la bëgg xool jàkkaar la ak yow. waa waa Casamance maa ngi woo baax a baax waa si combat bi gën see jàpp. waa Casamance. su ma nee waa Carrefour Diaroumé waa Kanjungu xam nga ñu gën see jàpp soq boo ngi nii mu ngi tudd Adama Adama Ciss jàppale si bu baax a baax a baax a baax a baax mooy loolu. kii dama koy duma daan ko Ouzin kii na ma xam taxaw ma man dama xam avant. tey doo ñëw yi ngay wax ni yëpp ay information la. information yi muy wax nii yëpp. kii dama xam Ouzin barki Serigne Bamba Mbacke. yow laay jaar wax nañ man tapetuma Adama Ciss laa tudd. ragalu ma ko waaw teel a teel teel a toog wala ñu ngi si wasaare lamb mu leer. Eh, say morom yëpp jaar na li ngay def nii fokkuma. bilaa wala yéemu ma barki ma moom laa tudd. def si lu la neex. mais loo gisee noo gisee noo gisee Bécaye état de forme bi parce que moo ngi lay naan nga dem liggéeyuwaat nga dem liggéey doole ju wow. barki alxuraanu karim Ouzin Ouzin billaahi ki ëpp ma doole. billahi wallahi wa taala ëpp ma doole suñ nee ringam. bàyyi la nga nga yow suuf. dool wax bàyyi asafulaa nga yow suuf. nga yow suuf yaa ngi naan asafulaa. bàyyi asafulaa nga yow gëmoon la ngay gëm barki Sëriñ Bamba nga am ci laa xale laa ji dinaa woon amateur yi man xale laa maay soxo ñi oh, nga doon bëreel. ak béykat soxo ñu nga doon dama la koy expliquer la soxo ñu nga doon bëreel. ak béykat bokkul. soxo ñu nga doon bëreel ak doomu piyaasar bi bokkul. soxo kii ñi ko daan ñemewu ñu bëreeg man. soxo ñu ko daan. soxo wala ñu ko daan. soxo xool na leen ñemewuñ la ñuy wax ñemewuñ ma leen. li may wax Fallou Ndiaye xam na si dara. mais yaa ngi koy. yow yow yow yow defal naa nga rek. bi combat bi man xooluma la woon. bi combat bi xoolul woon nga naa ma ñu ma daan. man nga gis yow ku la daan sax xooluma xooluma yow nga ma lay xool. musuma koo seetaan sama téléphone musuma téléphone musuma seetaan téléphone téléphone nii xool begaay wala photo begaay wala téléphone. sama sama boy mun na ma seere. lamb yu muy bëri arène maa ngi toog loolu laa am si moom jeex na <laughs> ni ma koy daanee. barki Serigne Bamba yéemu ma. ah. benn jooy la benn jooy nga. bàyyi wax jàmbur yi ngay jël jëlee say wax bopp ay jooy ak ay xool ak jëntuma lool ma lu ma la jëndee ah ma liggéey lu may liggéey arbitre siffle nga taxaw fu ma taxaw man neexalal la neexala yi neex jàpp la daan neexali mooy du may du may mooy neexali foofu man neexal ko kii moom foofu am si neexale mais nag mais nag yi ngay wax nii yëpp dama koy gis soq soq day xeex soq day bëri xam naa ne ndaanaan xeexam bu muy xeex baaxul ragal la combat bii paase dañ ko dóor mu sëlmu di arrière man musuma arrière ak combat bu dafa metti nag de. tapet la man combat yu métti Ibou laa bëre bëre bu métti. dañ ma ba ba ba samay laa lay wax laa ma jox samay supporter yooyu noonu ah. ban booy laa daan ah ah loo fi wax eh na leer loo fi léegi yow. juróom góor moo la daan maa ngi esaat. billahi la kii musuma ko seetaan si téléphone laa la wax. <laughs> ki combat bi ma seetaan dama taxaw mu seetaan te bokkul woon sama programme lamb. yow xam na loolu moo la jàpp. barki Serigne Ba. pied ba ngay teg nii boo ko tegee ngay teg maa ko moom. pied ba ngay teg maa ko moom. ba ngay teg maa ko moom. yow da ngay xalaat de. Eh, ne dinaa ko daan ñëw ba si woon ne xam naa lu tax ma jaar si pied boobu noonu. te incha allah. ba léegi waxuma pay incha allah le 27. le 27. le 27. le 28 nga seet si ma ma wax la ñeneen ñu may bëre du maa ngi sama bët tegu ko si kii. gis nga yow mënoo comprendre gis nga yow après yow yaay comprendre après yow yaay comprendre après xam nga lu a garaaw man booba tey xool man bëgguma la sax xool parce que ni nga toll eh, naa ne ragal nga amoo fit xool ma moo tax ma lay xool. man du ma mbër boo xam ne dañuy dóor man damay jël <laughs> coup man damay jël coup di wan sama adversaire jëluma coup. Mhm. mais da ngay jël coup di arrière. waaw di sëlmu. après. après lan daan. daan lan yow sa combat mujj bi arbitre sa jàppare combat mujj bi combat mujj bi nii arbitre ñoo si jàpp wax ji neex wax ji naqare yow sa combat mujj bi arbitre si jàpp ñu taxaw cinq minutes ñu bagaar yow ñu soog a bëre sa nga bagaar ak man barki Serigne Bamba yow sa nga bagaar ak man duma yow dama lay duma yow gis nga instant li ma pare pour def ko yow instant bi nii du ma toog fii naan la lii ak lële. xam nga nga la 27 dama la dul neexal. xam nga mën a ngaanga xam a ngaanga instant da ngaa yaakaar ngaak yoru. tax nga ne bi Habib Beye lu mu daane loolu jël ah. soo xoolee si biir waaji moo daan dafa waaxu waaji rek. dafa waaju waaji dafa waaxu waaji rek. soxor kon ñëpp maa isat laa ma ñëwoon sama gànnaaw moo si doon bëre isat <laughs> dafal nang rek. lu la waral ngay de daj yow. sa ñaari combat laa seeraat mm-hmm. mm-hmm. mooy bu la Kogna daan. Mm-hmm. bu mu lay etoog sa faare na doon tam. waaw ak bii paase. ñaari yoon rek laa seeraat. yow Kogna 2 jàpp sa. Ah, Kogna 2 damaa etoog kay seetaanul. dala ngay mot surux. Ah, <laughs> <laughs> Ah. làmb ma daan de. yow koñaare da laa jàpp rek mu jeex. Ah. xam nga da laa jàpp mu jeex. làmb yaa bi man trompeur maa ngi dañoo bëre ba dañoo wuure. Ousseyn maa trompeur dañoo wuure. di nga bëre ba joxe ba jeexal dara juru combat maama Lamine ba mi naa amateur yëpp bëgg. la maa borom ama maa mbër amateur yi. ma soxu soxu yow loolu dugg si man. xamoo ko sax non non yow dama la doon yoot yoot. yow yaa ma soxla. daa am business yu xew. kii combat la nekk kii combat la a daa am business la nekk mu war a bëre combat ñu may woo di ma wax waxi kii nii ma leen kii bëreewuma ak moom. boobu mu ngi ci mu ci combat mu toog dam toog ak Fallou Ndiaye. xam nga def seen SRF muy lool gars yi muy lool. maa ngi nuyu Fallou Ndiaye bu baax a baax du nuyu sama ménagère As. Ba a du nuyu sama waa Ekiri waa Sanjambour sama coach bu baax a baax a baax barki Serigne Bamba sa waay yow dañ normal sànq ba léegi ñu nga rek yow nee ko sa wala déggoo ma. nee ko sa koñ micro daanul mbër yii daanul mbër. bu ne loolu loolu. moom bu ko amoon day daw man bëreeguma promoteur woo ma maa ngi si sant yàlla bu baax. di nuyu promoteur bu baax. bëreeguma promoteur woo ma dama waxat combat xam nga loolu bu ma nekkoon xale gëm sama bopp. am mbooloo mooy indi làmb loolu duma dal loolu musul am musul am loolu. yaaw musoo am loolu ngay waaye bëri promoteur woo la dina jox beneen combat. mais mais ngeen ngeen ngeen di bëree ci journée boo xamante nii. da ngeen ko bokk ak ñoo xam te dañuy mobiliser. naka ngay waajee ci wàllu mobilisation. Ousseyn man ku ma bokkal bis da ngay xaar. mbaalu lu garaaw. ku wedde laay combat Papa Sow Siteu bi passé. maa ngi woon ay saat. combat Papa Sow bi Siteu bi ñaari kaar Ousseyn ba may dugg si. maa ngi woon esaat laa la wax. si booree Siteu ñaari kaar. si booree Siteu si boobu dañoo yéem ne booy fa la dëkk. billaahi. du moom moo toog. cinquante personnes benn baas lañ fa taf. cinquante personnes ak baas. xoolal. <laughs> billet trois mille trois mille cinq cent la sama booy jëndee billet ñoom ñëpp. te billet trois a raa jëndee trois mille cinq cent ñoom ñëpp te bu nekkoon junni noonu la ngay jëndee. kii du ma am moom maa ko mobilisé. maa de mbooloo fu dama dul jaay tigé. business yi dox si diggante maa moom damaa dem koñom. pour mu wax la yemuñu. ñëw dama ñëw ñu gis ma rek ñoom ñëpp ruux ñu ne booy bi dafa bëre wax jëm kaw ñu ne du ma bëre te lu rek la sa lan defoon de benn waaye moo ñëw waxoo ñoom booy bi moo jógee ba parcelle ñoom du bëre nga ne du bëre affaire yooyu noonu gaano garaaw ñu jaxase ak ñu jaxase dëkk benn catégorie ñu jox ko benn waaye wax ma yëkk ma jàpp ko defeere reko affaire yi commencé di njaan xam ne ni maa moom dañuy dee mu teelal lam ay bagage am maye dem dem booy xam ne maa jël tournoi bi ñu indi fi leneen yaakaar laama ji. loolu noonu mer boobu noonu maa ngi koy dencaale te xamul te jour ba incha allah naa la ko wan. naa la jël lu métti yàlla xam na li muy wax nii barki Serigne Bamba Mbacke jaarul ci film bi. ay témoin ñu ngi fi de ñi fekkee làmb ji ngi fi toog. mais gisoon nga ko jour billaahi wallaahi wa taala gis naa ko mais sax ki xolal ki pour mu wax mu leer. jour waaw su bàyyi xel de am moom moo ay bàyyi xel de man bàyyi ma. <laughs> yàlla xam na ni Ouzin. kii ndongolo ñoom ndongolo bu muy pare combat moog ñàkk a jëriñu suñu kii la doon kontaagee. kii bëri na aral ndongolo mel na. kii booy bi moom amul lu may sóor si moom. booy bi moom booy ma àndal nii moom la nii kii nii bëri na aral xaw ma ñaari combat xaw ma ñetti combat benn dañ kaa daan xaw ma loolu ma wax man ko ah man ko kon garaaw ki xaw ma si biir loolu noonu demi final mu xam ne dañuy dayee mu dem may palaasam booy bu may palaasam ñoom ñu xam ne booy bu ma ko jàppee day jeex ñu yàq làmb ji. yow yow yow ñu yàq làmb ji. ki mu may palaasam yow la Rose la. nga ne ki mu may yéen a yàq yéen a yàq kon kon kon da ngaa maye sa palaas yow. xam <laughs> nga Ousse pour mu leer. waaw. sa waay da ngay wax mu leer di dégg xaw ma. koñ bi muy wax man dëkkuma fa sax na jàpp ne fa laa dëkk nag foofu mooy sama koñ. di nuyu waa Jaxaay de bu baax a baax a baax waa Jaxaay de baax. mooy ki wax nii. ma bëree ba mbëkkante ak moom demi final. xam nga koñam mu ñaan ma man coow jubul ma may ko mais nekkul ki laa doon de. waaye ma nga doon xalaat. wër na Serigne Bamba Mbacké. billaahi wallaahi wa talaahi. billaahi. nee naa doom parcelle bu yëngoo. Oh. bu bu taqee ba romb la Bécaye da ngaa réeram say mbokk laa lay wax nii. bu jour ba dañuy dara wax nii sa ngan yow da ngaa tollul. sama laa gisul. waaw yaa ngi wax rek ah, yow yaay wax laa gisul laa la wax wala ah, déggoo ko mooy tatu ngir yàlla ab si rek. gën ñi lay demee ñi lay demee ci ah, jàmmaarloo di ci gërëm ki nga xamante ni mooy Fallou njaay defe naa ne euh, tëgg journée boole ci xale yoo xamante ni ni combat yoo xamante ni amateurs yi dañ koo bëgg wala ñenn yi nga xamante ni dañuy dañuy dund làmb dañu xam ne combat bii dafay bokk ci li neexal bés bi ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax moom falu Ndiaye di ko wax na nag am na ñeneen xale yoo xamante war nañ fee teew mais ñoo ngi leen di xaar yu mujj lan lay doon nga woote woo ñi ci jàpp ñëpp jox ko yóbbante ba bés ba. non loolu kii yóbbante bi lan la teel a ñëw xam nga a waaj ànd ay mboqam ma teel a waaj ànd samay mboq at bi sifflé man neexal ko neexal ko gem neexal ko siit teg bësël bësël bi xalaat perte bi. jeex na di woo waa parcelle. xam nga di woo waa parcelle bu baax a baax a baax un bu 26 waa Grand Médine laa ma ji seen làmb la xam nga waa parcelle laa ma ji seen làmb la waa Cambérène xam nga Soprim waa Casamance sama dëkk xam nga maa ngi leen ñu woowaat bu baax a baax a baax sama président supporter bi ma kii Ñaakuba maa ngi koy woo bu baax a baax a baax Ablaye Ñaako xam nga ñoom Ñaakuba xam nga ñoom Babacar ñoom ñëpp xam nga waa Massa église. xam nga waa Massa Église sëñ Modou maa ngi jël nuyoo teg ko sa loxo di woo ñëpp xam nga di nu woo waa mafia bi firi firi bàcc bi xam nga waa mafia 21 bi zero heure bi xam nga waa Grand Médine Bale Thérèse xam nga waa Wuteng waa Bopp Coor xam waa Kënzën di ñu waa Thérèse saraxi maa nañu woo bu baax a baax waa Pàq ba xam nga di woo ñëpp su ma limee juum nduur Ndour suñu président AIC e, maa ngi woo bu baax a baax si combat bi di woo maire Ami Dioum bàyyi leen gox maa ngi koy woowaat baax a baax a baax si combat mu gën see jàpp xam nga ku si mel ni Go maa ngi koy woo baax suñu mu le maire Jamil xam maa ngi koy woo baax mu jàpp si combat Malick Ndour xam xam nga Mass Thiam fii dawr si di ñëpp daal sama waa waa mbaar bi waa xalaat perte bi maa ngi woo ñëpp si combat bi di nuyu sam di sant sam ñu ma ànd ak ñëpp xam nga ko mel Daas Iso xam nga nooree ni njool mi xam di bëggee ñëpp di kontaan ñëpp di woowaat waa Casamance waa Grand Médine lamb ji seen lamb la. kii duma xëy lu garaaw laa lay wax nii dugub bi dama koy yëy duma ko soq dama koy yëy ba mu say boñ dab ma de. parce que borom daar sooy yëy dugub bi say boñ dab. waaye dama lay yëy warax la duma nan ndox. kàddu yi nga laa ma yëy nii soq. waaw di woo waa Jaxaay di woo waa Morola. Morola woo waa Jaxaay baax a baax a baax a baax waa baasu combat bi waa Morola. Mm-hmm. di bëgg képp kuy doomu séeréer Morola meeroo waro tiiroon asimiroon booy Morola gépp meeroon won nga mite say jëmo wurto combat non da mite say jëmo te inshallah ina ari kenin billahi wallahi mbaɗi mbandu golu mbaɗo teddelo mbaɗo jeeyla mbafala ñokko mbasoro inchallah le 27 février ni arama sislamu alisam alisam ma koy duwaade je kende ke alisam ma koy duwaade alisam ma koy duwaade akon ta boyla alfo akon ta boyla alin so duwaade kende ke ni ñamota ña sika fasan ña sura bangoro inchallah rabbi yeggali waaw di si woo samay mbokk seeral morala yëpp ah lu si commencé morala emal goron dingo xay jaxal Kilaan Loxos. Daaro Alpha maa ngi woo waa Zoual. xam nga Zoual baax a baax a baax a baax a baax. maa ngi woo waa Zoual baax ku si mel ni Pape Zoual. waa Noto xam nga mu gën see jàpp di woo waa. waa Palmarin waa Thielène waa Palmarin maa la ñu woo si combat bu baax a baax a baax a baax di woo waa Jilas waa Jilas waa Jilas maa la ñu woo si combat bu baax a baax a baax a baax waa Jilas maa la ñu woo si combat bu baax a baax a baax a baax a baax lii la si am nañ ko bàyyi mu wax ba pare waxal ba pare ba mu dese Fatick waaw yow andil waa àdduna bi ma daan la. maa ñu woo baasu combat bi. sa waay diwoo xeeñoo ko. ko de. lu garaaw la <laughs> yow yow yow kay yaa ngi ngaax <laughs> bi ngay mel ku ne sa gàlle. dafa <laughs> nang rek loolu laa foog de damaa jógee matinal damaa sonn nii sax. maa la gën a sonn bopp Serigne Ba waa Jaxaay yëpp Jaxaay 1 2 19 woo waa Jaxaay waa Daaru Cobo bi yëpp maa woo di woo autorité Jaxaay monsieur le maire. Mhm. jaana maa nga woo mu jaab si combat bi di woo Birama Niang waaw Dieng Ndiaye Mara Thiobu di woo gars yëpp autorisé jaa yëpp maa leen di woo ñu ñëw jaab si combat bi xam nga waaw di wax samay mbokk morolaay mhm. billaahi wallaahi wa taalaay comme kii ngaaka lu mu xam bëriwut ci man xam nga lu gën a garaaw nga am nga ni combat di gëgësu ñu lay jox ay faux information ngay jàpp jour ba lii ñëw xam luy doon lu surprise déception Ouzin kii munu munu maa munu munu maa def loo surprise si moom kii ma am surprise si moom. <tsk> di bëggee sama waa Aigri. su ma jógee ñëpp jóg dañuy sonn ngir man wër Serigne Bamba di bëggee sama waa Kos maa ngi nuyu bu baax américain. waa Gaal day sonn suñu waa Sane Ndiambour mbëri yàlla suñu borom dafa sama waa Gaal sama maam mère Ndiobo. sam papa wës booy comme bi ñoom papa si sa gars. men Ndiobo ma bu baax a baax a baax a baax. kii Mbène Ndiobo déggoo ma de. men Ndiobo ñaanal ma bu baax a baax a baax. waaw ah, noonu la demee ñaanal ma ñaanal ma. barki Serigne Bamba da koy ah. ñaanal. waaw ah. jàmm kooku moom ko de. eh man Ndiobo man Ndiobo man Bécaye sa doom maa lay maa lay maa lay. saaku ñaan nga ma bu baax a baax wala Serigne mu ñëw soo ko dë jaxaay dë nga dëkk dafa nang rek jaxaay dë dafa mboq 19 laa dëkk terrain basket ba ma wala déggoo ma sa waay dafa nang rek dafa ma ko man gisuma dara dafa am ay mboq ma dafa am mboq yebalu ma nit dem ma li nekk si man laa gëm dégg ngeen soo ko dë gis nga ay yóbbante yeneen dégg nga lu mu ma ba tey laa la maa nga soo ko gisaat ma taxawee benn yoon lañ gisane ma naan place Fallou gëstuwuma leen laamu ji jeex na li may liggéey nekkul si laamu ji de li may liggéey samay mbokk gars yi kenn leen si jàpp rek ki nekkul si laamu ji de sama <laughs> na sëriñ Bamba lay daan incha allah ngay ay waay yow ay ëlëmal nañu la yow yoroolu ma yéem du euh, doole bëre maa ngi kiiwaat du musique du dara émission bi naas na trop xam nga di sant ñëpp xam nga lu ñu fi wax nag waxuñu ngi leneen quoi dañoo wax pour neexal rek pour jaay suñu combat xam nga sooku champion la man champion la ñu boole quoi duñu ay noonu xam nga lu ñu dañuy def pour neexal nii rek neexal bis bi waaw di ñaan yàlla nag incha allah le 27 suñu borom may ma ndam seetu guy si kawam. waaw di nuyu waa parcelle waa 18 ma jógee maa leen ñu béggee tamit ñoom ñëpp. comme ni ko waxee rek moom moom xam nañ duñu ay noonu. Mhm. xam nga mais làmb foo la kafre su jeex jeex la benn taakusaan la ma daan mu jeex ñu nekkaat gaan non mënuma daan moom daan moom dama ko def daan bi am moom baaw daan la daan seet si may boppam mu am jël ñu may signal ne temps bi jeex na maa ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm di gërëm ki nga xamante ne mooy Fallou Ndiaye ndax lii lépp bu amee grace à moom la di ko jaajëfal bu baax a baax di wax yeneen mbëri nag nañu waaj ndax ñeen ñu ci bëri dinaa leen dalal plateau bi ñu ñëw defee ko noonu jaay combat bi maa ngi nuyu ki nga xamante ni mooy Aziz Aziz business compagnie Aziz mi nekk Colobane xale la boo xamante ni nii képp koo xamante ni bëgg nga yëre boo rafet wala dàll wala euh, cap wala ceinture wala lépp loo xamante ni rek ci sañse la jëm boo seetee Aziz dina la ko jox di leen jaajëfal sama cameraman yu ñaaw lii di jox dig daje beneen yoon beneen jàmmaarloo ak yeneen mbër Bécaye kontaan naa ci yow. maa gën a kontaan naa ci yow bu baax a baax. jaamu ci nga.